entier qui est qui est qui qui est très modeste qui est très constant parce que depuis bon, nous ngi a ay affaire yàgg na chaque chaque jour il indi lu baisse mais ce c'est pas facile donc Kouthia qui mérite amplement mais la barrière de la langue ak ñoom écriture que peut-être yow doo fa pour une fois pour dire que euh, le combat qu'on mène pour la langue pour loolu dafa am solo dafa am solo lool. beneen ci des mooy dañu gis ne en fait prime bi. Euh, ñu bëri félicité nañ ko L'Obs defal ko article boo xam ne ni page la je pense wala deux pages RFM defal ko euh, comment dirais-je sujet euh, rajo man déglu naa ko TFM defal ko reportage invité ko si plateau waaw ñu waxoon ak à plusieurs reprises sur des plateaux man tamit nekku ca agent wu GFM la am naa prix boo xam ne prix bi prix international c'est pas un prix africain je l'ai gagné au Canada à Montréal prix du public meilleure série Afrique mais Caraïbes mais États-Unis mais Europe mais mais mais mais donc s'il n'y a aucun article s'il n'y a aucun sujet du JT s'il n'y a aucun rapport aucune invitation alors dama à félicitations félicitation du moins mooy li ma wax rek ben jour ci affaire TFM bi c'est-à-dire dafay une drogue lo ne ni boycott la par rapport ak mam As bi nga xam ne c'est un artiste réalisateur qui fait des produits à quel qui lutax peut-être xam nañ ko mais man inshallah allah li ñu ñaan moy yalla may ñu bakkan ñu mëna tok réaliser encore réaliser encore tu vois mais inshallah ak sénégalais yi ñuy liggéeyal à équipe bi ñu am dinañ jëlaat prix jëlaat prix jëlaat prix n'est-ce pas et je pense que bu nekkee loolu rek la nañ kon na si loolu buñ mës a bind ci Mam As du L'Obs bu mës a bind si Mam As TFM bu mës a bind si euh, euh, comment dirais-je euh, RFM aussi bu mës a def reportage si Mam As ça je le leur interdis n'est-ce pas en tant qu'artiste boo xam man je suis indépendant c'est pas l'agent qui parle maintenant IGFM ils ont repris l'information et je pense que loolu noonu le minimum IGFM c'est il a repris l'information par rapport à ce que nous avons prix du Canada donc moi, je félicite Koucha. en tant qu'individu bien vrai que le prix là ça n'existe pas il faut le reconnaître maintenant si on fait mieux mieux kii peut-être que lay nekk tu vois et ça n'enlève en rien que c'est l'un des meilleurs humoristes du Sénégal et de l'Afrique